ah mbokki Sénégal mbokki lamb lu mësta am nag am na ci lamb le 25 juillet ci arène nationale ba waarent Dakar production def 10 grands combats lu musul am ci lamb komba bu mag bi nag war a dox ci diggante Marley ak Nékoré le drapeau Abdou Karim Fofana ministre chargé du PSE plan Sénégal émergent waaye nag waarent Dakar production du ñu yem foofu noonu ndax mobile de gone gannaaw yof fi dina fa jàkkaarloo ak Bour Sine Eumeu Sène Junior ndaw ñi ko boole ak ki nga xamante ne nii moom mooy Kalmu Ndour Kolbu Zap dina fa jàkkaarloo ak Pape Thiam ne dina fa jàkkaarloo ak Pape Yékini combat bi nga xamante ne ni moom la ñëpp di xaar diggante wulli ak Adama Diouf ci bés boobu la waaye combat jaay prek bi nag diggante Malick Ndiaye 37 fu ak buusit te bés boobu la Laurent di jàkkaarloo ak ki nga xamante ne ni moom mooy Boy Plateau Pokola jàkkaarloo fa ak Pape Kane numéro 2 ci le 25 juillet ci national nationale dina neex te dina yëngu mbokk yi suivre luttetv.com ñu ngi leen nuyu bu baax di leen ziare tey nag ngi fi arène nationale Maodo bëri fi yàggul dara dimanche digganteem ak ki nga xamante ne moom mooy Abdou Diouf mu am ndam fii côté bii nag la ko daane moo tax tey ñu ñëw jàkkaarloo ak moom fas yéene waxtaan ak moom ci combat bi waxtaan ak moom ci lu yaatoo yaatu ci combat bi waajtaayu combat bi ak ba bu mu daanee dem na Medina am na loo nga xamante ne waxoon na ko muy dernière semaine yi dafa feebaroon ba dàq combat bi sax doon nañ ko wax yooyu yëpp fas nañ ci yéen waxtaan ak moom bi mu daanee ba pare fan la jëm. combat Gris Bordeaux ak ki nga xamante ne moom moo di Balla Gaye numéro ku ne xam na ne tax na mu nar a nekk combat revanche combat boo xamante ne bu nar a bëri coow la comme premier combat bi loolu dinañ ak moom waaye waxtaan ak moom ci phase en général dañ ko nuyu bàyyi ko mu nuyu mbokk internet yëpp ñu waxtaan ak ndax yaakaar naa ne bi mooy première sorteem maa ngi lay la ziar moom. waaw Lamine maa ngi lay fay xam nga di nuyu téléspectateur euh, TV yëpp di nuyu képp rek Sénégalais yëpp di sant yàlla bu baax di junni si yonent bi sallallahu alayhi wa di ñaanal sama waajur bu jigéen yàlla guddal fanam may ko wér di ñaanal sama waajur bu góor yàlla xaare ko aljanna firdawsi xam nga di nuyu kilifa diine yi nekk ci réew mi yëpp sëriñ Babacar Sy Mansour di ñaan yàlla yàlla guddal fanam may ko wér defal ko sëñ Muntaxa defal ko Baye Ablaye Thiaw ak bépp kilifa diine rek mu nekk ci réew mi xam nga di ñaan Sénégal jàmm yàgg fi. ok Maodo noonu comme ni nga ko waxee rek bëri nga yàggul dara sa diggante ak Abdou Diouf waaye lu ko jiitu da nga amoon combat sa diggante ak Reug Reug le 15 juin 2019 la woon nga pertoon combat bi bi nga ko bi nga ko pertee nag Maodo mel ni mel ni ku dof Maodo mel ni àdduna moom dafa jeex ci ci ci ci ci ci combat boobu noonu dama bëgg nga ñëwaatal ma ci combat boobu nga pertoon yan erreur nga defoon ci côté waajtaay. ci biir géew bi parce que gis nañ adversaire bi arbitre dafa sifflé rek ngay daw ci kawam gis nañ ni dox nga ci kaw adversaire bi sax mais da nga doon dox par rapport ak sa combat ak Reug Reug nga ñëwaatal ma ci moment yooyu noonu sa combat ak man moom le passé c'est le passé amoo ñun tey ñu wootee jullit ba pare làmb ji ñun ñi fi nekk ñëpp ku nekk mës nga ñàkk xam nga ñun yàlla suturaal ñu muy mbapat muy bees rek noonu lañ ko mën a tuddee quoi parce que ñun ñu fi kenn foo mi ñuy foo tamit dàquñu ko fi ken mais dañu musul woon xam luy defet man li ma jot a bëre mbapat yëpp maa daan li ma jote a bëre aaren yëpp maa daan xam nga ci lépp sax lu ma mës dugg man ndam rek laa mës a xam moo tax nag loolu bu beesee si yow mën na la jàddal faneen quoi mën na la jaaxal te boole tamit mosuma gëmoon loolu parce que man gëwuma loolu quoi xam nga noonu rek loolu kese la mais amul ay erreur wala ay lu si dem bu ma amee erreur bu kii mooy làmb moom dama ko mosoon jël à la si benn côté bi waaw ah, ñi ma xam dëggantaan sama <laughs> yaay sax daf ma si daan tooñ chaque jour ak ñëpp naa ma làmb sànq dumawuñ la si ba ngay bëgg dee doo respecté làmb ak ay normam parce que man am na yoo xamante ne gaw ko mais nag boo jugee si mbir dina am nag yoo xamante ne da ngay xam ne làmb da koy laaj te da nga cee war a nekk quoi. loolu lan la entraînement la wala côté mystique. moom ñun ñëpp xam nañ xamante nañ ñun ay pois lour lañ yàlla bindee nañu nii kërën kërën mais ku ñu xam-xam ne li ñuy def ak li ñuy liggéey pois lourd bu dul liggéey booy peese ay nit koo xamante ne boo toogee boo respecté wul régime sax deux semaines sax mën nga yokku plus de dix kilos ndax noonu la la yàlla bindee. xam nga dangay ngay def sacrifice bu ne pour du téye sa poids mais deux semaines rek laa la wax boo ko arrêté régime lekk normal donc sa poids day yéegaat vite fait da sax jaaxal loolu loolu bu la yàlla bindee noonu ba pare ngay pees da ngay nekk ay cent cinquante huit kilos et quelque teewul lu nit def nga koy def xam nga kooku boo liggéeyul loolu mënul nekk c'est impossible xam nga moo tax ñun amuñu problème mu liggéey quoi mais làmb la woon daal loolu passé na sax. mbetteel daal mbetteel bi daal moo taxoon affaire bi. waaw mbetteel bi daal mooy làmb dafa lépp dafa war a mat. Mhm. waaw. bi nga bi nga perdre combat boobu après avant ngay jël combat bi yéen jàngat nga ci defoon. jàngat mooy rek luy moom waxoon na wax nañ ko waxoon nañ ne dañoo daaj nañ sunu gaal. doon dawal di dem yaakaar ne lépp gars yi bett ñu bënn ko. Mhm. daaraat nañ gaal bu bees tax waaw te bii moom wax dëgg fa yàlla caaxaan du ko bënn waxuñu nag kenn mënu ko bënn parce que yàlla moom ñun moom yàlla moom dañ koy bàyyi cëram toujours mais moom caaxaan bënn ko. waaw du ay war du ay caaxaan du ay pexe yu ñàkk xorom moo koy kii parce que daal dañ ko ndax làmm daal dafa kii folo ko mais ku daanu tamit da ngay rus dafa metti quoi. maanaam daal di nga nekk ci li nga war a nekk de A ah de A Z lu mu jaral nit rek dina moo ko di jaral. Hmm. léegi ñu toog presque un an sa combat ak Abdou Diouf taxaw yaakaar naa avant sa combat ak Abdou Diouf di taxaw sax sa combat ak ak ak Elton la amateur yi gënoon a xaar yaakaar naa promoteur boobu la njëkkoon démarché su ma jubul. waaw waaw ñuy wax tax waxuñu woon waxu Abdou Diouf Elton lañ waxoon parce que man ba ma bëree ba pare dama ñëw Pathé na ma waaw léegi nag comme que làmb ji tëj na ah, da ngay dem voyage affaire yooyu noonu ma ne ko man voyagé wu ma deewu ma fen défaite bii man moom mënu ma ak défaite loolu nag di si profité di nuyu ñu bëri parce que man ñu bëri Medina rek gëjuñ naa fa ba ma gëjee woon bëre laa fa gëjoon parce que man am na ñu bëri munu ma ko quoi man defet xajoowu ma ko woon bañ naa ko ba dama quitté woon Dakar dem la grosse pour nit ñi gis ma fu ma daan dem ak sama ay xarit ak sama ay nit ak ñu si bëri am na ñoo xamante ne bañ ma gëjee gis mat na at ndax defet waa parce que mais nag dootul amati te du ma ko waxati tamit yàlla même bu ma ko tegee ëllëg tamit teewul dinaa ko affronter waaw waaye daal lépp looy tax ba doo am defet dinaa ci di nekk waaw ba ñu kiiwee loolu parce que ne ma da ngay voyager ma ne ko man voyage wu ma de man làmb ji foog ma bëre ba daan damay amaat komba ba bëre ba daan moom mu jàpp ci xam nga ba combat bi taxaw ñu ne Elton baax na ñu ne nañ bëre ma ne man moom defet moom mënu ma ko toogaalee damay bëre daan far nag combat bi taxaw feebar bi ñëwati si sunu kaw pour nga xam ne rek yàlla mooy dogal dama doon bañ toog ak defet bi munu ma ko woon digérer far yàlla indi feebar bi nag ne ma defet bi moom di nga ko dund deux ans par force parce que man maa diriger xam nga boobu ba léegi tamit ñu nekkoon ci rek. ba mu ñëw yàlla tamit defal ñu si sutura. ba ba ba xëy jël yenn qualité nga nga nga nga xamoon ci Abdou Diouf est-ce que bëri nga ak moom parce que sonaloon na waa écurie Fass waxuma la sonal waa écurie Fass waaye daanu na sa mag est-ce que loolu yëpp waajaale woon nga ko. non man moom yooyu waajaale wu ma ko man moom wax dëgg yàlla moom saa yi bëre sport yëpp laa la wax dafa am logique sport yëpp dafa am logique mooy mag ñi xale yi ñoo leen fiy jëlee trompé nag du si ñàkk des am mag bu trompé xale mais loolu un pour cent la ciy nekk wala deux pour cent. waaw ñi fi nekkoon di aay ak lu ñuy taqe-taqe gars yi bañ ñëwee grand yi fi nekk ñoo leen fi jëlee kon tamit ñoom ñun ñoo leen fi jëlee rek man moom loolu laa ci teg combat bi moo tax ba ma demee ba ci biir am yu ci dugg sax ma xaw a tawat presque koor ga ba léegi entraînement yi dañ ko doon maintenir rek di gérer xam nga teewul dama ne ah kii moom wax dëgg fa yàlla quel que soit alpha donte am na qualité am na expérience am na lépp wax dëgg fa yàlla nag même bu ma nekkul woon mbër sax waruma mën a gagné parce que man xale laa nag te man wax dëgg yàlla faale wu ma dara. combat bi ak sa combat rek ban nga ci gën a daj coono. non yëpp laa daj coono. ah mais bu fekkee da ngaa jógee ci defet kay. nee mbër su daanoo dañuy xam ne mbër la. mais wala wala sa combat rek rek nga gën a daj coono ba foog nga leeral. waaw rek laa gën a daj coono téeméeri fukki junni yoon. combat bi tey bu doon sama moroom laay bëreel wala dara combat bi dama koy annulé de. waaw parce que risque boobu du ma ko jël di bëre wax tey Abdou Diouf tey yàlla nii rek la ko mënoon demee mais Abdou Diouf tey bu ma daanoon lan laay expliqué. xam nga moo tax du ndam boo xamante ne dama koy jël am fu ma ko teg wala dara parce que logique bi rek moo am quoi. léegi ñu ñëw ci ci combat bi nga dugg see gis nañ ni bi bii sax nga ko noon a sawar sa combat Reug Reug moom lu waral loolu da ngaa xam ni waa ji mag la wala da ko koo da man damaa mos dugg si làmb di saral. sa combat Reug Reug ñëw sévère bii nag gis nañ la ngay dugg ci kii combat Reug bi moom combat Reug bi moom man poids loolu laa mais damaa ñëw tamit gën a nekkaat poids lourd ci biir combat bi sax mais lagg beeg yooyu noonu da nga sévère laa la wax ma ne damaa ñëw gën a nekk poids lourd gars yi kii affaire mystique yi dañ may jox benn affaire wëral géew bi ñetti yoon man ak rëg-rëg bu ma ko wëree benn yoon day mel ne ay birig lañ takk sawa tànk bi boobu nag xam naa manque de récupération la man gëwuma ay affaire mystique parce que ñun ci keppaaru Gris Bordeaux li ñu xam ci làmb ci Gris lañ ko xamee te Gris mosuñu ko gis muy dund yëfu yooyu bëre ba pare naan dañ maa jàppoon wala dara loolu moom yëfu jaahil la yëfu dof la. Ah, mais terewul la ngay safal de. waaw non damay safal kay mais Gris musul bëre ba pare taxaw naan dañ maa defoon lii wala dañ maa defoon leen man gëwuma ay affaire mystique bi jusqu'à présent ñu toogee di si wax sax dama naan leen combat boobu dama ci manqué dama ci manqué repère. dama ci dama ci kii dama ci sonn. parce que déplacement yi am ci dernier jour yi moo tax ma dem ba stade ba mel ni ku ñu ku ñu yenn stade waaw. waaw ma dix quoi dix da ngay forcer dem mais ñun toujours rek man làmb lu ma ciy yëg yëg yëg bu ma gisee adversaire bi rek sama xel day daal man bu ma jàkkaarloog adversaire ma man kii bu ma feebaroon bay dee kii lu ma mënal man esprit boobu moo nekk ci man. avant combat bi gis nañ photo sa photo adversaire Abdou Diouf benn photo bu doon circuler ci internet bi yaakaar naa boobu gisoon nga ko boobu nga ko gisee xaaral ma yokk a parce que boobu photo bi da nga ko gis xam ne kii mi ngi ci biir waaw yow sa waaye nee naa la làmb dafa am sport dafa am logique am na temps bu si nit di def ak yow waroo sax am xalaat man tey li ma gars yi santoon pour ma bëre ko bu ma ko bëre woon mën naa si am sax lu ma metti ba ma muy dugg giri stade bi la ba xam nga moom day yenu làmb gis nga ni stade bi mel gis nga lii bis bu rëy la xam nga bu ko patax pataxee taxawal xool ko may ko xool ko li mu indi xam nga dem na ba naan ma gis nga Abdou Diouf liggéey na da ngay xam ne kii fonk na làmb ji mais li muy wax yëpp fii lay dugg génn fii parce que xam naa bis bi li mu laaj bis bi li mu laaj mooy ñëw wane ne damaa juumoon kii problème moo ñu boole mais man ak ñuy xooluma leen. moo tax respecté naa sax seen kàddu ndax taxaw naa fa benn trente secondes xaw a direeku waaw mais làmb moom saa man li ma gëm si esport te CNG sax war ko def règlement. mooy dañ ne dañu war a wax ñaar ñuy bëre ki féete xale moo war a attaqué benn xale waratu fi arrière waaw. gis nañ gis nañ gis tamit ñu bari jàppoon nañ ne sa sa combat ak Abdou dina am xeex xeex bu intan sax doon nañ ko xaar ci combat boobu noonu lan moo tax xeex amul yaa ko ko xañ wala moom moo ñëwuloon pour xeex. non moom ñëwul woon pour xeex te xeex bi tamit arrangé ko parce que man dama ko dóor benn dóor naa ko croisé bu dal te boobu bu doon si digg làmb ji la woon bu doon si digg enceinte bi laa ko dóoree dama koy yeggali mu daanu parce que dafa jël crochet bi mais si côté saako yi la bu ma doon dooraat rek muy génn arbitre di woote waat te combat bi moom dafa war a gaaw waaw dañu war a wax booy bëre koo xamante ne jàpp nga ne yaa ko mën da ngay war a bëre moom ci temps bu gàtt ñu xam ne kii moom saawaay du sax kii du moroomam quoi loolu laa sóoraale woon mais bu doon ci biir géew bi laa déclenché noonu moom combat bi ci xeex lay jeexee waaw ah, parce que bu ñu weccoo woon rek bu ñu weccoo woon ay coups rek moom day wàcc moom. su ngeen weccoo woon ay coups loolu day wàcc dóor nga ko roofoo ngeen nga nga roofoo ngeen après da nga gis dafa mel da nga bal dañ ko noonu. waaye PAM doy boo ko laajee. mu ne ma waaw yow nan nga ndax lii da ko géntoon wala dara bu yàgg laa ko wax ne ko Abdou Diouf nii laa koy daanee bu dee dañ jàppante. bu ñu bagaaree xanaa xooxe xeexay jeexal mais bu dee dañ jàppante ma nag moom nii laa koy daanee parce que xam naa <laughs> ay nit yu ne ci moom yoo xamante ne yàgg nañ di waxtaan quoi dañ naan ko Maodo buy padd da nga koy plaqué ndax contre kelewu padd làmb ji yëpp xam nañ ko loolu plaqué la nit kuy padd boo ko boo ko plaqué bett ko moom day jaaxaan da xam naa loolu lañ koy wax manu ko Abdou Diouf bu ma ko jàppee dama koy bal yëkkati ko mu teg ne damay padd ma ko sukkër bi ko. loolu la loolu. li nga ko li nga ko daane da ko andi. xam xam naa bu yàgg ne bu ñu jàppantee bu may xàcc pàdd bi muy plaqué ndax dañ ko ko wax dañ ko koy wax ndax yàgg xam naa ñu bëri ñoo xamante ne xam dañ ko dañ koy wax loolu man ko Abdou Diouf bu ñu jàppantee daan mu ñàkk fay dalaa koy daan ndax damay xàcc pàdd muy plaqué ma tuur ko mu mu tëdd fi ma taxaw laay taxaw. Mm-hmm. moo ba ma xàccee pàdd ma gis ne mi ngi mu ngi ñëw noonu am ma kot gisuma am ma kottu tànk bi pour mu déséquilibré ma plaque ma dàq ko plaque ko. mais mais est-ce que est-ce am na doole comme ni ñi di wax ne dañ na ci coono. ak ni am na doole nag mais par rapport ak man. nee naa la fii wax naa la ko waxaa làmb dafa am logique. am na doole ci kaw mu doon bëreeg moroomam mais nag ñun bokku bokku ñu nag wax dëgg fa yàlla. Mhm. kon loolu tamit beneen sas la ci yow comme ni nga ko waxee am na doole par rapport. bu doon liggéey ak bu doon bëri ak morom loolu moo lay wane nag yow kon ki nga doon bëri du sa morom daan nga ko gars yi nag ñu ngi wax instant bii nii dem na gis nañ ku mel ni Père Ngagne Diagne tudd na ay adversaire gis nañ tamit ku mel ni Père Max margan tudd na ay adversaire waaye nag nee nañ mbër bu waxee xamee ay adversaire am neexu utal komba ñeen ñoo adversaire yi instant bii. waaw ñooñu ñan lañ wax moom seedaanu ma. Père Ngagne Diagne nee na Sa Thiès Moussa Ndoye Garga Mbossé waaw loolu noonu Gaston Gaston na ko def tournoi yéen it keroog père Gaston maa ngi ko dégg mu koy wax nee moom star yi mu fi defaroon ba mu jugee làmb ñëwaat ñoom la fi fekkaat mais nañ defar yeneen grand yi ñoom noos nañu gàtte na leen ba pare gàtte na leen grand yëpp changé nañu oto peinturaat nañ seen kër yi defar nañ xam nga catuwuñ leen macha allah parce que daj nañ ko fi nag xam nga mais nag ñun nag ñun ñii nañ ñu defaral tournoi ñu mbëkkante am compétition benn ba pare xam nga am lu ñu war a am waaw yooyu noonu mu fi wax kàddu yooyu mu wax loolu nañ ko somp dóor ko dóor ko kii man ba ñu ma bëree kenn mais bu ma demee moom bay bëree ay yenn nit ñi moom wala dara na nekk tournoi mu nekk quatre combats wala trois combats yoo xamante ne dañ koy bëre xam nga ñun ñëpp ñu amaale ci compétition amaale ci kii carrière làmb ji neex quoi mais loolu moom ñu ngi koy lancé appel tous les promoteurs sax mais rawatina Père Gaston nañu laalal tournoi bu dëgër ñun ñii ñu ñëw jëflante ci. ñett ñooñu daal pare nga pour laal ak ñoom. ñëpp ak ñeneen ak ñeneen. guy gi rëg-rëg xam nga. guy gi rëg-rëg de léegi ñu tàqale ko le 29 août la incha allah. ñooñu noonu après nañ ñu laalal tournoi ñun ñëpp. foofu vainqueur bi nga soxla wala vaincu. ak ñaar yëpp. ku daana ku daan yëpp bëgg. ñoom ñaa ay ñoom Sa Thiès yoon bi ma jaar ak ñoom yoon bi ñu jaar sax bokkul ñoom ñëpp dañu bëri ay petit combat rek bëri ay combat yu neex am jël ay grand dem mais tey ñun ñoom ni ñu amee chance bëri ak ay Tafa Gueye 2 bëri ay Balla Diouf recherche si seen palmarès man aw ma ko. lan waaw parce que ñun dañoo ñëw rek ñu ne kii moom du mbëru caaxaan duñ ko jox mukk benn combat bu sedd mbëru mbapat yëpp bare na ak ñoom ba rëg rëg moomu ci mujjee am ci man dara da ko ay Pakala Ablaye Ndiaye xam nga rek rek ñoom ñëpp ay champion ñoo tegoon tànk si mbabat bi ñëpp ci man lañ leen jaarale mais nag dafa jot nag pour tamit ñu bëre yëg bëre mbër yi nekk fii nii ci banlieue bi ah ay ñoom booy Niang ay ñoom kii ñooñu ñëpp sunu ay adversaire lañ. Boy Niang kan. Boy Niang Ama Baldé ñëpp dañu war a bëre ñun dañu war a bëre parce que pour nga wane dëggantaan li nga mën moom wax dëgg fa yàlla ci ñooñ dong la mën a nekkee. foog ñu nekkee fee ndax mbëru mbapat yeeg yenn affaire yi dafa dafa war dafa doy tamit. mbëru mbapat yi sax am na keneen koo xamante ne temps yi ñu ngi koy wax même gis na photo yi gars yi koy def collage mhm. sa diggante ak Franc gars yi ñu ngi koy wax instant. waaw mais loolu Franc moom nañ ko dugal ci tournoi mu ñëwaale. man d' accord ci tournoi bi tournoi moom. d' accord naa sax Franc duggaale. boobu moom mooy neex mais bu dee benn benn la moom damay bëreeg mbër yi nga xamante ne ñoom laa war a bëreel pour dem. mais Franc dafa def exploit bu rëy fii ni nga ko defee barki démb digganteem ak Tyson 2 ñëpp ni Tyson 2 ko man mun ñëw daan ko avec loolu ñun bañ koy def yàgg na ñun def nañ ko démb Diop ñaata yoon laa Ndiaye mbërum mbapat la moo ko gën a bënn bëre ñu ñëw duma daan Pakala sa bu champion d'Afrique la kërëm kërëm ñu ñëw dàq ci ko daan. Auguste dafa mën bëre loolu li mu def noonu keroog ñun def nañ ko. mais est-ce que ñooñu est-ce que ñooñu ak Franc exploit si Tyson 2 te Tyson moo ko mag foofu xam li ma la man def naa ko samay morom ba def naa ko Ablaye Ndiaye def naa ko keneen ak morom ma ne li mu def nii man defoon naa ko trois quatre ans ci ginnaaw wala dara. waaw mais tey man du ma taxaw mukk ci àdduna naan adversaire bi du ma bëre ak moom. mais mais na la wala boole woon la bëgg instant bii nii nii. làmb ñun ñëpp la boole. mais bu dee moom la ñu war a ñëw bëre la war a bëre day nekk tournoi. sinon doo ko jël si ñun ñëpp. ñu dugg bëre. bu boobaa foofu day neex. parce que dañuy am compétition bëre ñun ñëpp. yow ak kan yow Franc. waaw man Franc. limal yow. ma lim. ma fi nekk di tamit ma lim mais yaa ko koo fi tudd daal ma wax la man sama position ci moom. ne hmm. aw ma jot taxaw fii naan diw wala diw. Garga Mbossé. Sa Thiès. Franc Franc Garga Mbossé foofu du mën a dugg ba Franc bokkee. Reug Reug Gouye Gui. waaw. man du ma fi tudd nit de. tudd nga de mu nit nag kooku foog ma ñëw ci yow mais balaa ma ñëw ci ci ci adversaire bi dafa am lu ma fàtte Maodo forme bi am na ñoo xamante ni d'accord uñ ci ak yow yaakaar naa ni gis naa ne da ngay lire sax ay parfois ci vidéo ñu bari nag nee nañ Maodo foog nga wàññi poids bi lu naturel la wala lu xew. bi moom sawaay waay man dama ciy bëgg maar sax parce que man mënuma di wàññeeku te bu ma toogee sax benn temps bu gàtt sax. moment bi moom wax fa yàlla. muy poids muy kii man yëguma ci dara parce que man amoon naa vitesse boo xamante ne ak gaaw boo xamante ne mooy loolu mais nag ba ma xawee feebar am na ci yoo xamante ne da koy bàyyi li waroon maintenir poids bi dëggantaan contact la woon contact la woon. ba un yu mujj yëpp contact contact yi sax ay maintien la woon rek parce que li ma doon metti moo tax xam nga te en plus ma dernier moment yi ma préparé ko sama kër yaay sama yaay day bañ régime day bañ salaat <laughs> day bañ lépp boo ko waxee mu ne ma doo fi lekk dara ñu naan la régimal nii la la yàlla bindee nii nga koy bàyyi day toog tiim ma nii ne ma da lekk par force waaw ci may toggal da lekk par force xam nga moo tax moom tooñ na ma. mais mais di nga ci bàyyi xel par rapport ak say prochain. bien sûr parce que ñun supporters yi rek ñoo tax ñuy ñuy ñuy liggéey. li ñu bëgg ci yow ak li leen di gêner ci yow wàññil biir wala dara non dinañ gis ne sax te nag sonn nañ ci de li ñu gis noonu sonn nañ ci trop trop trop trop trop. waaw mais kon li ñu wax rek li war a am rek mooy am. ok démb gis nañ la nga def benn sortie ci journal sunu làmb yow tamit ngay laaj Lac de Guiers numéro 2. waaw la dëgg xam nga moom dafa yàgg sonal Gris Bordeaux. mais normal bu sol ci sa tam non non c'est normal. Ah, adversaire lekk si ñun rek noonu la Gris mel ci moom ndax Gris ko njëkk dégg daali Gris ko njëkk siw Gris ko njëkk def lépp lépp lépp lu doomu aadama di am ci àdduna Gris ko ko njëkk am xam nga li ma la wax. mu dem tamit ba di ko laaj ba di ko bindal t-shirt c'est normal tamit ñun bu ñu leen laajee fierté la war a nekk ci moom. Ah, mais bi ko lim laaj Gris yëpp Gris. jëlu ko te daan na tey moo doon wax daan tafaagee mu daan la Lac de Guiers yamul ci daan tafaagee rek ñoom daan faasa bari. non mais loolu làmb moo leen booleegul rek xam nga affaire bi promoteurs yi moom ñooy tëgg ngir loolu mosoo ko dégg mu naan du ma bëreeg Lac de Guiers mais promoteurs yi nag ñooy am seen choix. te ngir ki dem kay fee sa jumikaay laa ko waxee. sa combat ak Lac mu ne ma non bul yàq waxtaan bi bul ma ko tuddal. boo moo ma tuddee boo fa tuddee Lac ñu arrêté waxtaan. waaw parce que Lac moo Lac mooy wax yooy te en plus Lac tamit mooy loolu quoi waaw mais mais man yooyu aw ma ci problème Lac daal na ñëw ñu bëre parce que xam naa ne li ko nit ñi di waxal ay day xaar day lii day laa li mu bëgg moom ci mbër la dëgg yàlla li mu bëgg ci mbër li mu bëgg mbër di ko def loolu wax dëgg yàlla ci man mii la nekk te yéen ñëpp xam ngeen si dara. bëgg mbër di ko def. mbër buy ñëw di attaqué moom dafa bëgg nit kuy ñëw di ko attaqué waaw pour mu nax la hmm. waaw sama saar yi nag dof yu mel ni man moom ñoom la bëgg. nga xamante ne arbitre day sifflé lu ko waay mën ci wax. billaay wallaay buñ doon bëree fii ma dox ci kawam. dox ci kaw Lac de Guiers. barke alxuraan karim loolu kay mën kay bu d'accord kay mën naa ko waat xam nga man waat du samay mbir parce que du ma jaaxil mën naa waat ne leen bu arbitre sifflé maa leen ko wax damay dox ci kawam sànni coup yi attaqué ko combat bi day jeex. mais yow est-ce que mën ngaa daan Lac parce que Lac tamit ñu ko songu ñëpp daanuñu ko ñi mu bëreel ñëpp ko songu daan. xam ay daan sama yoon da nekkul. man yàgg naa doon wax loolu man làmb devoir laa ci xam. benn Eumeu Sène dee ko mës a daan. waaw kay mais nag parce que yi tamit gars yi dañuy wax rek taxaw mais moom day day day taxaw mais tamit gars yi jëli buñ ko war a jëli tamit duñ duñ ñëw a affronter carrément. Hmm. mais man de wax dëgg yàlla buñ bëree ma dox ci kawam fii ma dox ci kawam bëree jaay ko sama bop comme ku mu nax la bëgg mu nax ma mais man moom bëgg naa bëree moom. te mais nag kenn waru koo ñëw jaay sa bopp. non dama ko dama ko waxee noonu rek mais man Maodo man damay ñëw mais mosoo maa gis ma dem fenn di jaay sam bopp donte damay ñëw damay kii mais li may def tamit dama ko xam parce que bu dee bëre mën naa ko bu dee xeex mën naa ko bu dee fit moom ñeme rek dóorante moom kenn gënu ma koo ñeme ci làmb ci. nee nga na bàyyi Gris te du tranquille. non dafa war a bàyyi Gris nag. bàyyi nag lu tax mu koy bàyyi la. non loolu bu ma koy wax sax am na teneen fu may tax moom xam na li tax may wax lool. moom ñaar la am man benn la am. am na ay niil man musuma niil waaw kon kay. mais logiquement rek est-ce que est-ce que euh, combat boobu instant bi lu war a mën a nekk la. lu war a mën a nekk la. lu war a mën a nekk la ci taay si jotaay si lépp. ci bis parce que ñun nag bëri nañu ay bis yu ñu bëre ñaata yoon lañ bëre Demba Diop ñaata yoon lañ bëre fii yëpp événement lay nekk ci làmb bis bu rëy lay nekk. kon nag jot na tamit pour ñu bëre pour ñu may ñu sens kon waa écurie Fass ñaata mbër tey ñoo fi nekk fii di bëre ci ay mbëru écurie Fass la ñu amee sens ba yéeg kon tamit ñun dafa jot pour ñu ñu mbëru Fass moom kenn du ko may sens. kenn du ko may sens. gars yi nag nee bi moom neexoon na ci yéen lool lool. 4 combats 4 victoires. waaw nañu xaar nañu xaar le le 4 Serigne ngi ñëw ñu xaaraat le 14 Pam Ndoye ñëw. am ndoy euh, kii euh, taxaw na am abu ñaase waaw tey loolu moom fi indi si stade bi nga koj ma fi tànc ma fi xam nga moom dictateur nga. non ëpp naa yow yaa laa indi pour mu signer si contrat mook abu ñaase sama rakk jooju nga xamante ne sang ma rek la deful ci combat bi <laughs> waaw taxawu de près waaw moom li ci kanam daa raw li ngi ñëw le 22 août. Mm-hmm. Forza ñëw le 31 juillet. te Gris Bordeaux ma ngay ñëw lépp incha allah rabi di face daal new look incha allah. waaw keroog moo ko laaj dañuy combat bi amu ci benn sikki saak yaa yaa yaa yaa gën a neex xalaat Abdou Diouf dàqu la waaw ñun xamante nañ. Ousseyn moom xam nga genre yooyu neex deqal ci làmb ndax bu bàyyi conseiller ba pare da lay xëcc si ruq bi ne la he bu leen a déglu gis nga kii doxal ci kawam duma ko dem sa yoon. ñun xamante nañ. moom tamit am na combat bu rëy a rëy ku ko daanoon lay bëri Pakala ah même chose rek moom xam nga dafa duma Abdou Diouf daan ko man ma ñëw daan ko man ma bëri woon ak Pakala tamit daan ko moom it day ñëw rek jaaraat incha allah ndam rek ndam rek ñëpp am ndam incha allah. kon nañu yoon yàgg ba xam fan la wax ne di mujjee kii gëtam actualité foog ñu waxtaan ci tuuti mbirum borom ñaari tur yi temps yi commencé waat ne lëmb dëkk bi te yow yooyu da lay déranger gis nañu heure bu amee rek gir ngir dana ci wax. yëngatuwaat na de. non man amul ay heure bu amee Gris 2 dina jox day. heure bu amee kay nga wax saison yii di. nga nga nga naqarlu. ma sonal ci waaw parce que fuñ fan lañ ko teg rek. fa in lam yastati fa lisaani fa in lam yastati fa bi qalbi foofu lañ ko teg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam c'est que dafa am loo xamante ne yàlla bu waxul woon ci alquran wattaqu fitnatan laa tusibanna alladina zalamu minkum xaasa wa alamu anna allaha shadidul iqab bu ko waxul woon kon ku mu neex nekkal lu la neex mais yàlla moo ne fitna du yem ci bopp borom te ñu gis ay xeet yoo xamante ne looloo taxoon yàlla alak leen te ni justice police nekkee ku noppi complice nga boo gisee kuy sàcc nga noppi complice nga noonu la sharia bu doon nag ku nekk loo def ci yow rek lay yem kon loolu ku si nekk da naan ku mu neex na na def lu ko neex mais loolu dañoo gis yàlla alak ci ay xeet yàlla sunu borom ci boppam da koo seexlu parce que ba mu koy tudd si alxuraan dafa ndax yéen sañ ngeen lii sañ ngeen jigéen ñii ma leen defan ngeen bàyyi leen fi di def lii loolu bàkkaar boobu genre genre ndëkk yàlla la mooy yàlla yow aayoo munoo yàlla yow xarañoo munoo bind aayoo xam li ma la moo tax bàkkaar la boo xamante ne réew mu muy am lu xewati bu mu bett kenn fi yoog ñu ngi koy bàyyi muy kurkural wala nit ñi di leen reetaan wala ñu koy foxee bu dara bett kenn amul mag ñee fi tëdd amul Samba Ndiaye moo fii ñaan amul dara bis buñ ko bàyyi mu salone rek wala ñu commencé di ko foyee te commencé nañ ko foyee pendant des années parce que nit ñi ñu ngi koy ree ñu ngi koy def ay kaf léegi rek ba nga ko tuddee damaa ree ree aoudu billahi mina sheytaani rajim mais lu ko gën a dangereux ci àdduna lu ko gën a dangereux ci àdduna ci réew ci yeefi volcan wala tremblement de terre wala géej gi débordé lu ne ci àdduna yàlla mën na ko mën na ko mën na koo def ci réew à cause de loolu moo tax nag bu amee ñun dañuy wax bi ñuy wax mooy ñun duñu tus réew mi ñu dara mais wax bi ñuy wax lan lay représenté mooy yàlla ah man de ba mu xewee pour bu ñu yàlla alakee ba pare ba tegalaat ñu ci kanamam ma ne ah yàlla man de Gris 2 waxoon naa. doonte bëggoon nekk complice. kay waaw bu ñu amee occasion ñun taxaw micro lool dong lañ ci jublu. pour rek yàlla xam ne kat ñun nekkuñu woon complice. waxoon nañu. waaw loolu lañ ci jublu. mais mais est-ce que lu lu lu nit war a jékki-jékki rek jiñ ne la est-ce que nit warul dem ba am ci ay preuves que ni kii ci borom ñaari tur la bokk. ñu koo koy wax mais jékki-jékki rek. naan man moom bu may wax rek d'une manière général laay waxee en tout cas daal en tout cas daal lu ko jaar si àdduna amul. Ah, mbokki Sénégal mbokki lamb lu mësta am nag am na ci lamb le 25 juillet ci arène nationale ba waarent Dakar production def 10 grands combats lu musul am ci lamb combat bu mag bi nag war a dox ci diggante Marley ak Nékoré le drapeau Abdou Karim Fofana ministre chargé du PSE plan Sénégal émergent waaye nag waarent Dakar production du ñu yem foofu noonu ndax mobile de gone gannaaw yof fi dina fa jàkkaarloo ak Bour Sine Eumeu Sène ndaw ñi dinañ ko boole ak ki nga xamante ne nii moom mooy Kalmu Ndour Kolbu Zap jàkkaarloo ak Pape Yékini combat bi nga xamante ni moom la ñëpp di xaar diggante Wouly ak Adama Diouf ci bés boobu la waaye combat jaay prek bi nag diggante Malick Ndiaye 37 fu ak Boussine te bés boobu la Laurent di jàkkaarloo ak ki nga xamante ne ni moom mooy Boy Plateau Pokola jàkkaarloo fa ak Pape Kane numéro 2 ci le 25 juillet ci arène dina neex te dina yëngu